conseillers municipaux yi nekk ci Ndar Kepp HLM nga xamante ne ni ñu ñoo tànn ci suñu tayeef 2014 ba ñu palee maire ki ñuy wax Ababacar Sadikh Seck indil ay leeral ak ay yaatal ci ni ñuy yoree mairie bi boobu ba léegi ci biir loolu mu am ay taxaw seetlu yu bari yu ñu def ci ay jafe-jafe yoo xam ne maire bi teg na ko population yi ay luubal yu kenn mënta jàpp xel mënu koo nangu moo tax ñun ñi nga xam ne ñu ngi fi toog kenn ku si nekk si ñun ñëw pour dénoncer loolu en tant que ay conseillers municipaux ñun ñëpp ñu fi nekk ay conseillers municipaux lañ looloo waral tey ñu ne ñun kat ba tax élection yi ba ñuy fal 2014 population daf ñoo sasoon nañu boo leen demee na ngeen ñu saytul suñu koppar ak suñuy doxalinu mairie waaye France xëddéem li ñu jot a gis yëpp mooy luubal bu metti bu fi nekk ñun nag bokkuñu ci yoolu ñu bëgg a yëkkati suñuy baaraam. artu maire bi yëkkati suñu baaraam artu population bi wax leen ni ñun loolu bokkuñu ci ba tax na ci biir loolu am na yoo xamante ne nii ñu ngi koy joxoñ baaraamu tuuma maire bi bokk na si benn kayit bi ñuy wax autorisation de construire joxe naa référence bi sànq si tubaab autorisation de construire boobu arrêté lañ jël numéro 15 bu 26 juin 2019 wax ni mi ngi dem ci lot 98 14 GR ak 21 96 DG nekk fële. ci rond-point Colobane ñi ngi joxoñ baaraamu tuuma maire bi tamit ci li jëm ci wàllum stade municipal bi ñu ngi jaaxle ay at ngi nii ba mu toogee ci maire bi ba léegi gis ngeen maire HLM bi nekk ci corniche bi kenn tabaxu ko lu tax loolu luubal ak càcc gu metti moo fa nekk te dañoo loolu dafay war a jeex ba tey boo demee ci stade municipal bi nga xam ne ñu ngi koy tabax mu toftaloog marché HLM ba ngeen dem foofu ngeen xool ko jox na leen photo yi gis ni luubal ak càcc moo fa nekk ndax dafa am benn société bi ñuy wax Socabek signé woon benn contrat ak maire de Dakar ba woon ak acte trois de la décentralisation ñu gis ni loolu yëpp dafa tuxu ci mairie HLM mu yor responsabilité bi waaye ba mu ko yoree ba léegi def ci benn pexe kaw téef ci li ci gën a doy waar mooy dafa fexe ba ñooñu di conti continuer di tabax ay cantine tey li ñu waxoon ak li ñu déggee woon askan bi ba léegi defaguñ ko stade bi ba léegi kenn livré ko ba tax na tey ñaari projet yi nga xam ne ñun dañ koo saytu càmbar ko gis nañ ni li ko tax a jóg mooy fexe ba am koom am xaalis fexe ba nga xamante ne nii cantine yi fa nekk dañ koy exploité te population bi duñ ko yëg conseil municipal bi di ko yëg en tout cas ñun ñii day bokk ci conseil municipal bi ñu ngi yëkkati suñuy baaraam wax ne ñun yëguñu ko bokkuñu ci ba tax na ñu ngi leen di joxeñ tamit ay baaraam tuuma ci ay parcelles yoo xamante ne nii dañ ko complot ñenn ñi di ko exploité te conseil municipal bi yëgu ko population bi naka noonu ba tey dégg ngeen fi fan ci mbas mi ñuy dugg di Covid 19 moo am benn enveloppe deux cent vingt millions bi ñu dégagé woon enveloppe boobu ba léegi ñi ngi wax ni niñ ko séddalee tey na suñu xel loolu yëpp nag boo ko booleek luubal bu metti bu nekk ci poste de santé ak centre de santé bi nekk HLM nga xam ne dañuy yëkkati ci lu toll fukk millions ak juróom mooy quinze millions woon di leen ko jox ñaari at ngi nii boo leen demee laaj leen ñoom gisuñu dara foos xa dem loolu yëpp nag moom moo tax tey ñu gis ni luuba yu métti am na ci maire bi ñu jël suñuy responsabilité en tant que conseillers municipaux ñu dem def benn lettre benn bataaxal wax ko maire bi nekk na tontu si liñ koy wax ndax lii tey na suñu xel am amuñu am nañu ay preuve yu leer waaye dañoo bëgg laaj ko ba xam moom lan nay tontu lettre bi bañ ko defee mi ngi toll si ñaar fukki fan ak juróom benn ci wàllum juin weeru juin mu bañ say tontu. ñu taaxirlu ba ñetti fan si wàllum juillet ñu bindaat ko beneen ba daaxal mu bañ see tontu loolu war a ñun ñu jooy ko fa mbax ne doonee benn mooy su préfet Gande Ka nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu kilifa waaye moom nee na dina ko càmbar te dina xaar ba octobre mu convoqué benn conseil pour ñu wax ci loolu ñun duñu xaar loolu population yi dañ ñoo fal dañ leen war wax dëgg sàcc ak luubal moo fi war a jeex looloo tax tey ñun ñëpp ñu dajaloo bokk ndey bokk bàyyi ñëw waxtaan ak yéen wax na ni tamit porté nañ plainte nag ci benn courrier boo xam ne mi ngi dem si le 12 mille 2020 li nga xam ne nag ñun moom la ñuy toppee maire bi mooy euh, yorin bu tàggatémbe ak bu ñaawa ñaaw bi mu yoree maire HLM mooy njëkk li si tegu mooy suuf si nga xam ne HLM bariwulew ko ñu ko xool ni ñu koy liggéeyee pour askan wi mën see gis seen bopp mu koy luubal di si tabax ay cantine ak lu nekk mu def jël benn promoteur boo xamante ni nii amul délibération jël promoteur boo xam ne nii amul appel d'offre mu jox ko marché cantine loolu daf see war a tontu maire bi ba tey dafa war a àddu si lan moo waral depuis 2014 HLM gisuñu benn infrastructure benn investissement bu mu def dépensé maire boo xamante ne nii li ñuy dépensé en fonctionnement mooy ndox courant ak salaire moo ëpp li ñuy def si waa HLM li ñuy def seen bopp moo li ñuy def si waa looloo waral ñu ne ñun ñi ngi njort. ni maire bi dafay luubal xaalis dafay am ay contrat fictif ak ay employés yoo xamante ne nii mi ngi koy teg ñu am nañ ci ay preuve kayit yëpp ñi ngeek ñun boo ñu ko laajee ñu jox leen ba tax na ñaari at a ngi nii foo ma laaj jeexalee comme ni nga ko waxee woon lu demee ni ASC HLM ak euh, ASC yi si toftaloo yëpp ak poste de santé ak centre de santé bi gën nañ gis xaalis gën nañ jot xaalis te ñun ñi ngi jot budget yi ñi ngi délibéré di wax maire bi naka naka naka defee ni ñu ko waxee waaye du rendre kenn xelam moo ko doy ñun nag loolu yëpp métti ñu naqariñu moo tax ñu bëgg wax ni ñun non seulement bokkuñu ci waaye dinañ ko wax population bi luubal bi ñuy toppee maire bi ëpp na un milliard te am nañ ci ay preuve yu leer ñun nag duñu xaar ba mbir bi wéy mbuus dañuy baat le fer quand chaud